réew mi wax yi dafa bari fan yi lool fenn fu ci ne ay wax di fa jóge loolu nag ñu am tuuti luñ ci fàttali rek xam ne suñ borom dafa digle ci alxuraan ne innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum fa aslihu bayna axawaykum nag kon nañ xam ne jullit bi mbokkam dëgg-dëgg mooy ab jullit waaye lii bëgg di bëgg a xew ci réew mi من عدم بأعج فهون كم دخان في في ميجم القرآن ده فسنت عليهم واتقوا فدنة لا أن الذين ظلموا منكم خاصة وعلموا أن الله سديد الحقاب كم فدنة أكو أي يوم يقتل بالخم فمي يوم يوم كنك نيب بكو دكي شام ريو war nañu xam ne nañ sàmmonte diggante àq dëkkandoo ki nga xam ne bokku leen diine sax taalaw ila kalimatin sawa sawain baynana wa baynakum alla na'budu illa allah loolu la ci alxuraan santaani waxoon na ci alxuraan itam ne wala tujaadilu ahlal kitaab illa billati hiya ahsan kon ñi nga bokkul diine sax tañ bokk ci ahlul kitaab booy def ak ñoom mujaadala na nga xam fa nga war a tàmbalee fa nga war a te def ko ci wax qawlu linnaasi husnan looy wax nga wodd ko ba mu rafet ndax mu amal njëriñ nit ñi kon loolu ñu ngi ciy bàyyiloo xel nit ñi bu baax ñu xam ne wa ahbibil muumina lil imaani wa tubxi lil kaafira lil kufraani ki nga xam ne yéen a bokk diine lislaam na nga ko jàpp sopp ko ngir li nga xam ne ab doon na ko jullit yéefar biir bañ ko ngir lu mu doonu jullit walaw ata ilayka bil jinaaya zaaka wasa ni ko sëriñ bi waxee jullit bi daa te yéefar bii tooñu la kon loolu lislaam da ko santaane kon nag nit la mu wax ne moom la doon muy doon jullit war nay sàmmonte li lislaam santaane ci digg ba mbokk jullit yi kon daal ñi ngi fàttaliwaat ñëpp ñu seet نيجا خمنة ريمون الله سوسوون بنجلي موي نتعاون في ما اختلفنا في ما اختلفنا ونتحاور في ما اختلفنا لين خمنة ما سنتي جبوجي دعوجي نفخ بسامكو دعوجي لين خمنة أم ننتي وترك نوقف عند فخ بدعوجي واي نخمنة كر وخانتي بنياو شبير تاريخي ولا شبير ديني يكل الإسلام تميوت يا با ndax euh, jëw sax dañuy wax ne boo jàkkaarloo nit di ko wax loolu jëw la jële naa nag mu fàdd la nga di ko wax te euh, ni ko Sëriñ Tuubaa misaali ci jawharu nafiis rek dafa wax ne xaqiiqatul xiibati duna rey bi zikruka xaala saxsi baxda la rey bi ba ci biir mu wax ne am am na fu mu ko nettale ci biir xisa boo xam ne ci rasulullahi la amoon كقرن بن أم كان شيء أمها تومي شيء جلني يوحنا هذه طويل زيلها فقط فسقطت مدخة لحم فحلف صلى عليه الله ما حاش الشرف بأنها لو هدمت لا بد من دخولها النار إذا الموت يعني كقرن بن رجل من كيده يري يوم صلى فوق جدول بيشجع على الصوف رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول gëqal mu gëq lu lumbu deret génn muy médd mu ne ko nag tudd sa mbokkum julli fu mu noonu la demee ne ko loolu nag bu reesoon kon xasante ci biir jullit lu diis la ci biir lislaam tey xam ne ngëm dafa for ci nit kenn ku ci ne ni ko xaddis ba waxee rek kullu mawludin yuladu ala fitra kon nañ xam ne kenn ku ci ne la suñu borom eh, bindi ci yow xam ne loolu nga nar a gëm loola yàlla dogal na ko moo tax afa anta tukrihu naas xataa yakunu muminin nit ñi kenn du leen forcé ji faw nga gëm ndax lañ xas ba gëm boo doon wax ba déwén suñ suñu borom tudd ko it mën a fexe ba génn ci kon nag Serigne Touba am na lu ñu wattandiku la woon ci waxtaan wi mujj neewoon na li dal diggante. nasaraan yi ak yahud yi na ngeen fexe bu mu leen dal yéen jullit yi moo waxaalitil yahud laysati nasara ala shay'in waxaalit nasara laysati yahud ala shay'in ñee ne ñii nekkuñ ci dara ñee ne ñii nekkuñ ci dara loolu werante la wax ne kenn xamut fu muy akk ji te amutu njariñ amutu mujj kon kenn ku ci ne la nga gëm sa moroom gëm ko ne la ko ñépp sàmm leen loolu mooy indi jàmm ci réew mooy indi jàmm ci fu mu mën a doon te jàmm kat fu mu amut nit du tara jàmm yàlla jàmm fu mu amut nit du tara lekk jàmm fu mu amut nit du tara nelaw falya'budu rabba haazal bayti allazi at'amahum min juu'in wa aamanahum min xawf ci jeexal nag li ma ci bëggoon a leeral mooy li indi wax ji mooy téere boobu yi nga xam ne euh, boroom xam-xam yi gën a siiw ci réew mi taarif ko muy Iba Der Thiam moo andi coowul téere bi jàngale histoire nag buñ ko dee wax buñ dee buñ dee jàngale histoire dafa war a tege ci dëgg ak maanu nahnu naqussu alayka nabahum bil xaqi alxuraan sax dafa wax ne bu ma lay netti la xamoon dama koy teg ci dëgg kon nag bu fekkente ne dañoo wax ne dañuy jàngalewaat histoire réew mi buñ koy def dañoo war a fexe ba teg ko ci ak maandu mooy tax mu am njëriñ ndax li mu war a jur kat mooy nit ñi xam seen démb xam seen histoire waaye nag bu fekkente ne dañuy dañoo wax ne dañuy jàngalewaat histoire réew mu jur fitna ci biir réew mi fenn fu ci ne ak daay dafa tàkk loolu amul njëriñ kon loolu war nañ ko xoolaat li nga xam ne nag moo ci fànn yoonu murit ndax man la ci des dama cee maalu ndax ñun ñépp ñoo bokk luñ doon kenn ku ci nekk am loo gëm sa morom di loo ko sàmm leen kon mënuma dugg ci kéelam wax ak kéelam wax waaye li nga xam ne bind nañ ko ci Sëriñ Tuubaa daal njuumte bari na loolu moom ka bind bu ko may na ko dindi ndax nit doo te am na ci yu garaaw yu ci ne yoo xam ne bu demee ba nit ñi xam ko sama mën naa fi ne ci biir réew kon loolu moom na ñëpp xam ne yoonu murid reconnaître téere ba li fii defaraat ko ndax histoire boo koy bind danga war a sukkandiku ci ay weerson yoo xam ne yu bokkut lay doon ndax bañ koy bind daayira Rawdu Rayaahiin bi nga xam ne ñoo yor loolu ci wàllu yoonu murid bañ ko déggee kenn woowu leen ca waaye ñoom ñoo yëglu wax ak ñoom ñoom ñu invité leen ca ndaje mu njëkk ma ñu dem ca yabal fa délégation ngir ñoom it bokk na ca lañ leen waxoon mooy nii ñu def ñoom na ngeen fexe ba def ko kër gi yëpp ci Sénégal na ngeen woo ñëpp kenn ku ci ne wax leen seen weesu ngeen boole ko dajale ko pour mu mën a doon lu wóor waaye ñoom nee nañ booba dañu mu jaxawaat ñoom dara kon buñ jekki-jekkee bind loo xam ne ci histoire Sëriñ Tuubaa dara am na ci yoo xam ne wérul wala sukkandikukaay wérul ndax naaj joxe benn firnde bu gàtt rek am na ci benn ci ci masdar yi boo xam ne dafa wax ne Serigne Touba ci sareexa ak diinu ju set la nekkoon njëkk maam Cheikh Ibrahima Fall di jëblu kon loolu la muy junj ñëpp xam nañ ko sa loolu téere ba ka ko ko génne woon ñëpp xam nañ ko euh, Serigne Maodo Touré ba coole bare ba nar a indi fitne ci réew yi da leen woo dajale téere yëpp lakk ko kon bu sukkandikuwaatee coole njuumte la. am na ci feneen yu bari foo xam ne dafa wax ne maam Cheikh Anta moom ak maam Thierno te maam Thierno yu bari bari na ca ak histoire yu bari loo xam ne bokk na ca ci wax it na maam Mor Anta Sali tëltul dem moo tax Sëriñ Tuubaa génnoon dem loolu di wut maam Mor Anta Sali daaram bokkoon na ci daara yi gën a mag ci Sénégal dañ daa wax ne sax université la léppoon ci réew mi ca yooyu jamono bu nit daa jàng ci barab day dañuy wax ne kii dafa fànnu ci naxu wala arud wala bayaan wala mantiq wala fiq moom na daaraam yëpp dañ fa daa jàngale moo tax dañuy wax ne université la kon ñi ñi ngi koy xamal moom ne ko bu fekkente ne bëgg na téere ba ñun ñu nongu ko te ni ñu ko koy diggale ci suñu biir tam danañ ko koy diggale ci kër diine yëpp ndax ñoo ceew batte fenn fu ci ne na dem laaj leen ñu jox ko seeni mbind mu boole ko yam am ñu duwal ko ci biir topp ko bu téere bi leer mu génne ñëpp xam ne amal na njëriñ Sénégal waaye nag mënee su ta bàyyi histoire ndax adduna day dox te mbind du fi dugg buñ ko bàyyee moom mu continuer jëmbi jamono ñay dikkaat dana jàpp ne histoire suñu Tuubaa ndee demee kon loolu ñu ngi koy xamal ne ko daal ànduñ ci ànduñ ci tey ànduñ ci li fi defaraatuñ ko ba téere bi dëgg ci yoon loolu moom ñu ngi koy wax ci kanamu adduna sépp di ko xam bu fekkente ne nag nanguwuñ caa dellu ginnaaw boobaa la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon rek la waxaat ba fi tere ay tere am suñu gàntu ci Mbacké daa jox taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp ndigal nee bu ko bu fa kenn dem di fa jën ba bitig ba fay kon fii itam bu ko bu bu bu ci diisoo amut waxtaan amaat ci bañ déggoo ci boobaa itam dana jël responsabilité. xam le ne bi nanguñ ko te ànduñ ci loolu daal laa amoon ci lu ci leer la euh, di sant yépp di gërëm ñépp di ñaan yàlla suñu borom dimbali ñu def jàmm ci réew mi def ak dal ci réew mi def ak déggoo ci biir réew mi def itam ak déggante ci biir réew mi ndax Sénégal kat même te ñu fi dëkk ñëpp ñoo bokk réew mi te suñu borom bi leen fi dajale moo xam ne tax mu dajale leen fi. te suñu kilifa yu baax yi fi jëkkoon sàmm nañ ko ba nëgëri lépp di rafet kon loolu lépp loo xam ne mën nañ ko ci góor góorgóorlu ji fexe ba sàmm ko ba déggoo ko di continuer ndax koo xam ne mënoo tuxu mënoo jóge fa nga dëkk kooko jàmm rek mooy la la jëkk ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh